the 5th Chinese medical team arrived in the Gambia on Monday, and they were received at the Banjul International Airport by the Minister of Health and Social Welfare. The yearly deployment of medical team to the Gambia is part of the cooperation between Beijing and Banjul to support Gambia's health sector. Moses Emendi has the details in this report. The Chinese medical team touched down at the Banjul International Airport on the eve of Monday. It comprises of nine doctors with specialty in various medical areas, including pediatrics. The team of doctors will have a one-year stint in the Gambia and will be involved in theoretic training and teaching at the country's referral Edward Francis Teaching Small Hospital. Dr. Momodu T. Nyasi, Deputy Director of Health Service, views the support as a good one. So it's a very good uh, support we are receiving from China. So they have been supporting us since the beginning of COVID-19 when it starts. So they have been giving us a lot of laboratory and diagnostic tools, uh, infection control, uh, prevention materials, just to name a few. And today we are receiving the fifth medical bag from China that is going to support our country to make sure that we move our health service delivery of this country forward. He assured that the team will get full support from the Ministry of Health to enable Gambians to benefit from the medical expertise of the new team. Their coming will fill a huge vacuum. The team will also offer support to all the main health facilities such as Carnifin General Hospital and Brickhammer. Dr. Sun, the Chinese medical team leader, shared gratitude and excitement to be in the Gambia and looks forward to contributing to the improvement of the country's health system. We will do a lot of uh, health, uh, health work uh, to improve the, uh, to uh, improve the uh, Gambia people's health problem, uh, I think uh, we may uh, have a, a very difficult time Luo Wenjung, economic and commercial counselor of the Chinese embassy in the Gambia, said the medical partnership between Beijing and Banjul is a long-term relation. I think that we are two nations, but we are one people. Thank you very much. Today the arrival is the fifth one we will continue, you know, work together with their, our counterparties. Our Ministry of Health, thank you, and our, you know, teaching hospital, and also all the medical, you know, uh, workers, doctors. Yeah, thank you very much. He said the Chinese doctors will be shifted after a while, but the medical mission will stay forever. The team will work with Gambian medical partners to boost health service delivery in the country in a year time. The fifth medical team that arrived yesterday will be replaced by the sixth team. Moses Mendy, iAfrica News. All right, uh, Moses, thank you very much for uh, that report there. Of course, uh, just quickly, uh, uh, moon ñang gis nga uh, Gambia ak China nekkul lu bees dafa mel ni dañ ko defati ren tamit at bu nekk dañ koy def yónnee fii ay seen ndaw di yëngu ci wàllu wérgu yaram mooy ay docteur ñëw dimbale Gambia ci wàllu paj mi ci réew mi Euh, ñu defati ko euh, ren tamit gis na gaa yi si nañ fas yéene euh, soobu ci réew mi war fe nekk benn at foog naa ne diggante bi lu am solo la waaye tamit lii amatina solo mun nañ ko wax ci diggante ñaari réew yi. waaw am na solo xam nga diggante Gambie ak Ceene comme ni ko ambassadeur waxee yàgg na. Mm-hmm. te doxalante bu tax moo si am kon lii nekkaan na lu nga xam ne lu am solo te fu ñu indi seen dimbal donte la bunte yëpp am na solo waaye bi gën a dina am solo. Mm-hmm. mbiri wer gi yaram mbiri docteur am nga docteur fa manqué ci aduna ci yeb so gisee ko la ci mën indil juróom-ñeent nit yo xamne dañu dañoo jappale jàppale waat mi ak doomi Gàmbi yi ñi fi nek ak yenen Amadou. Mhm. lolou dina nek lu nga xamne lu am solo dina dimbalel bunti wer gi yaram bi bu baaxa baaxa ba su ko defee tam nak euh, ñu decentralize docteur si rek ta xamne yenen yi nek ci provinces Bansang yooyu noonu am lack of docteur su ko defee ñu baña jël yew rek tek ko bankul tam te xamne ne l'hôpital ci yeb de nit euh, xam nga pesin mom amul duñ ko rexeb mhm. ku si ne rek sa feebar lu mu tuti rek mun national borom su ko euh ñi support tam l'hôpital yi nek ci province si ak euh, docteur si AC mexone tam do mëna yem rek si anytime. time nit kii di la may jënd da ngaa mu jangal lu ñu ñu mhm. euh, tam tagat ay doomi gambien si bari waxtaan ak nguuri Chine ñu yóbbu leen fa. waaw ay ñu tàggat leen ci bépp xeeti feebar boo xam nit mu ngi def ak si wala si bépp xeeti cër bu ne si nit ñu fexe ba ay doomi Gambien tàggatu si yooyu ba am si xam-xam ñu dellusiwaat si réew mi ba pare di jàngalaat doomi Gambien suñ ko defee rek dootul nit ay yeneen nine docteurs yi jógee from China ou from America ou from anywhere else mm-hmm. soo def si baax trop yeneen yi nga jéem koo fexe. mënal ko sa bopp barki démb rek yaa ngi wax mbiri si région bi wala si yeneen Sénégal dañ si am euh, may trop mm-hmm. te seen ay doom la ay séeréer ak ay lifin ñoo fa nekk di ko def soo su ko defee loolu tam Gambien si war nañ koo mun a def bañ rek ñu ñoo abal wala di ñu may wala di ñu lebal fexe ñuy utal suñ bopp bu am na ay nit leen te nit ñu am xel ñoo dëkk si réew mi ay gaam ñu fi am nañu jàng su ko defee donte am na ci si kaw sax docteur yi nga xam ne yu mag ñu ngi Angleterre si yeneen ak yeneen nekk ay Gambien waaye xëy na kom kom bi moo tax ñu toog fa way parce que nak li juróon na fi ci am nga yena level yi ci walu paj mi ay mm. docteur yi nga xamanteni nga soxla xam-xam bi bo len pour fay leen ah. nekkoon na fi jafé jafé loolu taxon na sax be nguur bi ministre bi initier pour ñu yok ak ñom seen fay bi mëna attaque ñene ñi ñew waaw su euh, doon mm, waral li yépp way ba légui tam suñu yóbboo lu mat témir wala juroom fukki nit ak nangam xeyna ak liste dinañ am tatti o bu nga am ñu waat neen baax pour liggéey ci réew mi anyway ni ñi gëna japp ci lool rek tagat doomi réew mi ci bunti métiers yi bëree bëri si binti paj mi si binti leneen ak leneen bañ rek ñu ñoo abal Alfayda Time Amadou Ba yeah all right maam la mooy jàngat bi ci initié wala boog ci développement boo am diggante Gambie ak China ci wàllu wér gu yaram bi kon ni ma ko waxee nekkul lu bees waaye beneen tii tamit beneen tiim bu ñëwati la euh, jàppale Gambie ci wàllu paj mi mun na ñëw jàpp ne lii euh, donte ne xëj na du yàgg la la yàggul ci nu seen nekkin fi waaye mun nañu am impact bu positif si suñu health sector bi because da am yenn taxawaay bi nga xamante war nañ ko mun a dimbale suñ medical system bi euh, pour ñu mun a taxaw waa réew mi wala doomi réew mi waa jërëjëf is a welcome idea ndax li tax mooy comme ni ko ñang waxee fi àdduna tollu ci 2019 ba jamono buñ tollu daanaka sikkiñ moo lakkandoor ku yuuxu rek da ngaa ragal ñëpp dafa am benn mbas mu ñëw gàllankoor nit ñi te réew mu mel ni China foofu la doore dem ci li nga xam ne mooy tugal gi ba tey nu mu yegsee ci li nga xam ne mooy Afrique fii ñun ci suñ euh, dëkk ci suñ dëkkuwaay yi tey bu demee ba ñooña nag ñi deltuwaat di ñu jox li nga xam ne moom moo nekk gët pour namanoo bàyyi xel indil ñi juróom-ñeenti nit ñu nga xam ne dinañ bokk ci ñu ñuy taxaw ci wàllu lépp lu jëm ci yokkute ci wàllu li nga xam ne mooy paj mi euh, njoxtu bu rafet lañ ci am te am na yaakaar ne ni leen ministre of health welcome noonu la leen Gambians yu bëri welcome ndax Gambians yu bëri tey dangay gis ne ñu ci bëri si suñu ay wayjur sax buñ feebaraan bu buñ demee ci hôpital yi buñ gisul Chinese yi seen xel du dal. Uh-huh. dañuy wax ne he waaw man moom euh, Chinese bi moom moo ma moom moo seetal suma yaram. moo ma jox garab borom day am confident bu nga xam na waaw wala tubaab bi exactly ñoom dafa dafa dañ gëm mentalité boobu ndax depuis jamono tubaab yi ñooñu dafa am cër bu ñu amoon ci suñu wàllu health sector bi kon loolu bu demee bay war a continuer waat ñu am team bu nga xam ne dinañ fi nekk lu toll ci benn at bu ñu fi ñëwee rek gëm naa ni am na lu ñu war a yokk ci suñu health sector bi. Mhm. mooy benn comme niñ ko xalaatee rek mooy ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci suñ euh, hôpital yi. Mhm. ñi am luñ rootee ci ñoom. ba ñoom buñ fiy jógee ëllëg mhm. dina am luñ fi bàyyi. ñoom tamit comme ñëw nañ ñi décentralise leen ni ko ñang waxee ndax référence yi daf dee bëri tey ñu bëri buñ nekkee ci hôpital yi nekk ci kaw gi. benn hôpitalu Bansang hôpitalu Farafeñe man sa konko yëpp tey jii dangay gis ne euh, ña fay nekk daanaka du ñuy am borom xam-xam yi nga xam ne tey jii hmm. lu ci bëri buñ ko soxlaa foog ñi daw yegg si ba fii te diggante bi ak distance bi bu ñu amee ñu mel ni ñi décentralise leen. Hmm. am ku dem toog fi nga xam ne mooy Basse kenn toog Bansang kenn toog Mansakonko kenn toog Farafeñe hmm. bu dee ñaar la wala ñett sax ñi des ci li nga xam ne moom moo nekk Greater Banjul bi. Hmm. da ngay gis ne loolu dina jox yaakaar bu bëree bari team bi fi nekk ba ñoom tam bu ñu demee dinañ xam ne réew mi am na luñ ñàkk ci wàllu wér-gu-yaram ba this time nine lañ ñu indil mun nañoo indil yeneen team ndax man sa nine yi dama ko xeeb. Hmm. bi franc man ko ma ne nine nag comme ni ko. ndimbal ñang waxee ku ñuy ku ñuy wat ku ñuy wataat doo wax fii lañ may yóbbu. waaw sikkiñ moo lakkandoor fi jamono toll ci li nga xam ne moom moo nekk wàllu mbas ak wàllu wér-gu-yaram. lépp lu lan na waaye dimbale ci wàllu wér-gu-yaram rek jërëjëf nga ko war a wax. ok jërëjëf kon gàcce naa la am am na solo su ko defee nañ desandi sax ci wàllu wér-gu-yaram boobu leen.